Dioum moom moo yor ngeen lu li dóor na ngel kooki jël tànk bi placage waaye daanu ko génnaat na ci ngel kooki caatu Moussa Dioum ngel caatu Moussa Dioum jabaxal na ko mbot ngel kooki waaye demul ñoom ñaar luñ bëgg ñu ngi bëree ngel kooki dóor na ñu jugaat taxaw laamu ji day gaaw ndax nee naa la ñii ay nañ ay champion nañ si deretu champion nañ bok ngel kooki ngel kooki looloon la action bi nga tante baaxul bu yàggee da ngay Mom, may magu bib Diop 95 bu yembal jatu musa musajum di rakku musa djum digante yembal ak parcel la ñaari xalé yaangi beure maniko digante musa djum la ak bib Diop 95 san dem ci yalla si musa djum yalla ko yalla yeeram xare ko aljana te yexeñu ñun ñi fi dess jegal ñu tamit suñuy bakar guddal suñuy fan mom nat yalla na ko yalla tertu ter ko ci aljana yu gëna kawé mom musa djum ne kon rakamane kini nii ci digi géew bi yor ngeen lu wex li bopam ngel koki di mag ci Bib job 95 lamb bu ñaka yàgg xaar lamb amateur la ñom ñaar ñu ngi bëree jàppante taxaw kenn ku nek am ñaari loxo ci ngemb di deglu sa morom di xol ku juum daanu waw ngel koki waxoon na ko damay maye mais jour lamb je buma ma di nga xamni du la may dara dina baye mere caat ne ko mala man mala dak zuru lamb ja nga ci xam dara waye bu ñam yagge yàggee ga war nañ xol fan la wànnente di mujjee batam, ñom ñaan ñep jappante nañ di dégluwante dañ jaay ndanan kenn ku nekk am nga ñaari loxo ci ngem ngel kokki jaatu musa jum ngel kokki dan jaatu musa jum jël bu amul benn wérante jaatu musa jum dan ngel kokki di moes caatu Moussa Dioum moo daan ngel kokki da ko caxabal wéeru ko mu contré ko nooju ko tàmbale bu ma soufflé ngeen taxaw bu kenn daw adversaire am nag yéen ñaan ñëpp ngeen te am ngeen jom bëre leen da ngeen a war a bëre ay ndaanaan ngeen bëre leen xaar ma laaj samay naataangoo ba xam ndax pare nañ arriéral naataangoo ndax pare nañ C'est où ñaari mbëri continuer ak di déplacé wu arbitre togal ñaari ngi lewato troisième combat de la soirée journée Djoufi Production aujourd'hui mes amis je vous le dis et je vous le répète c'est samedi 17 août 2024 on est à l'Estade Arena de Pékin. le combat qui déroule actuellement c'est Bab numéro 2 contre Frontière numéro 2 ñom ñaar ñu ngi lewato Bab numéro 2 ak Frontière Pape numéro 2 mom mo fété à gauche mom mo dor légui frontière djel nako gennat na kon Pape mu ngi non di dor di ansoné frontière mu ngi ansoné ñaari combat jank la ba dor mu daanu ci am xalé yaangi xex xalé yaangi xex ardo amna ardo amna ardo amna frontière numéro 2 yobuna na numéro 2 ardo waaw ma ngay dem ardo mom Pape numéro 2 nee na supporters yi jug leen jug leen nuyu naa la yak morfal ca Ndakaaru Grand Dakar nuyu naa leen arbitre bi soufflé waat na frontière moom moo ñëwoon ginnaaw Pambaay dem na Ardo ba ñëw frontière xeex na ak moom Pambaay jël na ko si suuf génne na ko génne na ko Pambaay am na ñaari sënu si suuf frontière génn na ci frontière génn na si Pambaay ngay dóor frontière a ngay xeex ak ñaari xale yi dañoo ñimente ñaari xale yi dañoo ñimente Pambaay a ngi noonu moom mooy takkaat sengoram yor ngeen lu frontière moom moo jàkkaarloog ñun wàcc toog ci ay tànkam di xool adversaire am ci bët Pape Mbaye frontière ñaari ndaanaan lañ dañoo mën a bëre attention coup boobu attention coup boobu frontière attention coup boobu Pape Mbaye di indi bu la dalee da daanu ñoom ñaar ña ngay xeex frontière Pape Mbaye ci digg géew bel combat lii moo neex lii mooy combat xale arbitre toogal arbitre ci suuf lii mooy combat xale ñaari xale yaa ngi bëre arbitre bu ardo amé dina lako wax dogal ba bay ak frontière di ñaari natango ñaar xalé am dom lumuy muy plaqué placage mbot mbot mbot waaw waaw waawaaw waaw frontière numéro 2 dan na Pape bay numéro 2 jël bu amul ben werante Pape bay démérété wo da nga ñew ak confiance bu ëpp da nga ñew ak confiance bu ëpp ni la ni moy lamb tay da ngay ñak suba nga am dam wuyul frontière mu ngi noonu di saafanteeg moom fair play nan ko ndaanaan nga nan ko ndaanaan nga noonu la demee.